mom sax bokku na ci nga xamne dugal nañu mom koku le di Dani Olmo gannaaw bi nga xamé ne kat gis nañu ñom wa Barcelone ñu daanu won benn bal ci dara wala ci premier mi-temps bi bi ñu mi-temps way rek ñu dal di génné ki nga xamne moy Ferran Torres indi ki nga xamne moy Dani Olmo ñu fatale len demb rek lañ koy inscrire tay ji mo am chance jeu ay minute mi ñëk waye marqué son premier but match bobu nak ñu gis ne ki nga xamanteni mom lañ wax Lamine Yamal itam ko na ci ndax mom mo def passe décisif bi nga xamne ki di Dani Olmo dal dina koy dugal lool di wone rek xarañte gi nga xamne gone gi am ko bu ñu xolé ñetti match ci Barça jeu gum yëpp moom ki nga xam ne mooy Lamine Yamal bu ci nekk da ci décisif voilà ndax bu ñu bàyyi xel dafa daal di dugal ci li nga xam ne mooy benn bi def tam li nga xam ne mooy paas ci ñaar yi premier match ba dafa defone passe décisive bi ci top mu marqué ab but tay ji mu defaat passe décisive mom goné gog di Lamine Yamal Lol di wane ne deug amna am na xarañte te it yaakaar dëggu ci ndortel saison bi nga xamné ne ko ñu ngi xaar mu def lu raw li mu def daw marqué but yu ëpp lu mu duggal daw wala wala sax mu def ay passe yo xamné ëpp na li mu def daw wala ni mu doré dal neex na dal na xel bom koku di Lamine Yamal waye tam ki nga xamné moy Dani Olmo itam ni mu doré dal na xel lol man nañu wax ben mi-temps képp le jeu dal di duggal li nga xamné moy premier bitam waye dal di def match bu ama am solo ñu gis né benen bit bi ki nga xamne moy Pedri moko dal di dugal Pedri mo dal di égaliser gannaaw bi nga xamne dañ jitu won Barça wala mu dal di dugal li nga xamne moy bit bi nga xamne motax ñu dal di dab rival Kano ki di Olmo dugal bit bi len dal jox ndam ci jogante gogu ñaari bal ci ben kon man nañu gis ne Barça ñetti match ñetti victoire wala day wéy di dess ci li nga xamne moy bop classement bi ci li nga xamne moy Liga bu Espagne lu moy nyugis ñu gis na nak suñu gënde tay ji amna ci ño xamne jot nañu football bokk na ci Sadio Mané ak Al Nassr bi nga xamne tay ji waxon na dañuy jouer seen digënté ak Al Fayha match bobu Sadio Mané ko na ci ndax def na passe décisif wala lolu di wone rek xarenté gi mu am ndax bu ñen baye xel ci match bu ñëk ba donté né dañoo nilon mom mo defon passe décisif bi bit bi nga xamne Ronaldo duggal nako tay ji tam mu di def passe décisif wala pour ki nga xamne moy Marcelo Brozovic passe bu reuy sax la ko jox mom ki di Sadio Mané international sénégalais wala ñu gis na nag li nga xamné ne mooy ndorteeli saison bi mel ay biram a ngi dox ñaari match ñaari passe décisif mom koku di Sadio Mané international sénégalais ñom ñoo ci am ndam ñent bal ci ben ñent bal ci ben nak ki nga xamné moy Cristiano Ronaldo tànkam mu ngi ci bir ndax kat mom tay ji dafa dal di dugal li nga xamné moy mooy ñetti téeméer juróom-ñeent ak ñent ci ay bal dal dina koy duggal kon melni ben bal képp moko té mu am 900 but moom Cristiano Ronaldo tey sax ab free kick la ko dal di dugalee voilà mooy coup direct moom ngeen di gis noonu kon mel na ni téeméeri bal ak benn moo ko téye am junney bal moom Cristiano Ronaldo voilà nekk koo xam ne day moom itam li mu dooree saison bi dal na xel ndax bu ñu bàyyi xel ndorteeli saison bi lee ñeent bal dugal gum na ko defit li nga xam ne mooy ñaari passe décisif kon juróom benn bal moom ci tànkam voilà moom Cristiano Ronaldo ci ndorteeli saison bi foofu nga xam ne Barça amoon na ko tey jile seen diggante Rayo Vallecano ki nga xam nga xam ne wax nañu leen tànkam mo ci ñetti match yi nga xamante ni dal dina koy am yëpp tal del di koy gagné bu ci nekk wax nañ leen dugal na wala mu def passe waaye nag juróom-ñaari match yi nga xam mooy club moom la mujjee football ñu gis ne marqué na ci ñaari bal def ci itam lu toll ci juróomi passe décisif ci sept derniers match yoo xam ne joué ko bu ñu xoolee li mu ci li nga xam ne mooy club boobu di Barça ak li nga xamante mooy équipe nationale bu kon mel na ni forme ba nga xam ne ci la newoon ci Europe mel na ni boobu la continuer rek ba tey jile match bu mu ci joué rek ci match officiel dina daal di dugal mbaa mu def passe moom kooku di Lamine Yamal geneen gaynde ci suñu gaynde yi moom itam tey ji la titulaire njël benn bi yoon ak équipe boobu la di Everton ndax xam ngeen première ligue moom Everton ñaari match yi mu joué yëpp dañu koy dóor ay score la koy dóor waaye ñu fàttali leen match yooyu Iliman COP la mooy korop coupe de la ligue voilà foofu la ci Angleterre tey jii titulaire na marqué ab bit boo xam ne moo ko liggéey moo ko dugal voilà ca digg terrain la jëlee ballon bi voilà dal di xuus ci biir gars yi dribble neex ko mu dal di dugal li nga xam ne mooy bit bi moom kii di Iliman bu mu dugal moom kii di ak équipe yees boobu di Everton ci premier titularisation voilà tey jii lay soog a ab match waaye itam tey jii la dugal bitam mu njëkk moom kii di Ronaldo dañu koy sargal ñi waa UEFA ñooy def lu du li ko waral mooy tam ngeen nañ war a li nga xamante mooy Ligue des champions bi loolu nag mu nga war xew ni ki ginnaaw suba loolu la mu ngi xew ci jeudi bi bi muy gannaaw suba rek voilà ci la ñuy jox ndam loolu wala boog li nga xamante ne mooy prix boobu kii di Cristiano Ronaldo ñi fàttali leen Pape Ousmane Sakho info bi ñëwoon ci woon Pape Ousmane Sakho voilà moom nag dafa daal di dellu si fii ci Afrique waaye ca Maroc Maroc moom xam ngeen ne championnat bu baax la ñu yor te nag seen club yi ñu bëree dañuy am chance dal di fay jógee dem directement Turquie wala sax yeneen club foofu la ci bi nga xam ne nekkoon na Simba SC xam ngeen ci at yi weesu mu jóge woon fa dem France signé woon ci club boobu nga xam ne mooy QRM waaye mel na ni day QRM googu mu signé woon ay mbiram doxu fa voilà dañoo gis na sax dafa mujjee dagg li nga xam ne mooy contrat ak club boobule nekkoon agent libre léegi signé na ñaari ati contrat ak club boobu nga xamante ni voilà moom la ñuy wax Raja Casablanca te nag am na option yokkaat ci benn kon melni ni man na nek ba ñetti at wala mu dal di koy khatim ak club boobu nga xam moy Raja Casablanca lol mbir la mo xamne nañu officiel na ci ngon si doon nañu leen wax ne ki di jaw euh, Cancelo amal na li nga xamne moy visite médicale mo ngi non khatim na contrat ba moom ngeen gis non mu dal di tey mayo ñi di wa Al Hilal bu kuli Koulibaly ci Arabie Saoudite 25 millions d'euros wala lol ne nañu mo ay ci transfert bi mom nak dina am lu tolli ci fukki millions ak juroom yi muy jot at mu ne kon li transfert la bo xamne ne soti na féetoo na ko te ñetti ati contrat la dal di khatim mom koku di jaw Cancelo Manchester United sen milieu de tere bi ñuy wax McTominay moom itam dem na ca Italie ak équipe boobu di Napoli fanweer ci ay millions lañu ko jaayee transfert ba sotti na McTominay nekkatul joueur Manchester United voilà dafay dem foofu nga xam ne mooy ca Napoli dina dem foof nga xam ne mooy ca Italie amal xam ne mooy contrat bi voilà moom kooku di a xam ne moom ab transfert am xam ngeen ne dal nañ ko officialiser ci bis yi nga xam ne weesu nañu ko waaye nag ci yooyu jamono Manchester United dañoo tëj buntu ubbi buntu ndax ki nga xam ne moom la ñu wax Manuel Ugarte moom dafa dafay dem foofu te ñu ngi xam ne sax tey jii ci guddi amaana sax dina wàcc foofu la ci Manchester United tey tey ndax kat li nga xam ne mooy mbirum Mctominay googu nga xamante ni dégg maam ci la nekkoon dal nañu koy ndar ki nga xam ne mooy Hogarth dina travel dem foofu la ca Manchester ci Angleterre dal di xaati moom itam ab contrat ak club boobule sukkandikoo ci taskatu xibaar yi